واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 لا إله إلا الله أدخل بها خبري لا إله إلا الله أدخل بها لساني لا إله إلا الله أرضه بها ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رجال الخيبة ورجال السعادة أهل الكسوفة وأهل التوبة لا إله إلا الله حليم حكيم لا إله إلا الله سبحان الله الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم إني أسألك موجبات الرحمة وخصائل مغفرتك والخليمة من كل برد والسلامة من كل سند اللهم لا تدع لنا سندا إلى حفظت لنا ولا هما إلى فرجت لنا ولا حاجة وهي لك ردي إلى خطيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل حسن يسرا ومن كل فايسة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والعصم وأعوذ بك من الحجس والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من خلابة الدين وخفر الرجال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهذه أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهذه الأزهار الموجودات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهذه البداية والنهاية من المحدوم والموجود إلى الأبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi teew ci taje bi mooy jiitale sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala te julli ci rasulillahi alayhi salatu wasalaam mu ngi leen di siyaare yéen ñëpp di leen yi ngeen ñaan yàlla barkeem ak yërmandeem suturaam ak ci man di soññ sama bopp waaye da leen soññ itam nii ñu ko jàppoon nii yàlla may nu eggale ko noonu ku ne ci noonu def pas-pas te ñaan yàlla jaamu ko ni muy nuyu lu yomb am na kum jafe lool yàlla xam na loolu waaye li muy jafe-jafe ci ñeneen ñi tam yàlla baaxale ba yombalal loolu maanaam mu lay wax ni yuridullah bikum yusra waye wala yuridu bikumul xusra yàlla daf leen bëgg a dimbali pour yombal leen ngeen jaamu motax may len kattan may len temps wutal leen fi ñu ko defee waaye jubluwu ci len leen ba melni def gi da ngeen di perte temps lolu amu ci sen xarit dañu jang ben ay rek wala tamu dana la defana aynayka ilaa maa naa bihi azwaajan ñu koy wax léegi ci ci ci téere bi maa xool aay boobu nga xam ne suñ borom dafa doon wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko digal sa njaboot wax waaw wax mur ahlaka bis salaati wastabir alayha ndax laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa defe ko wax noonu kon digal leen ko kaw dafay wax ni uhm, muy soxna yi wala njaboot ci kum ci man di doon ci ñoom xajut sama diggante ak yow maanaa sa doom xajut sa diggante sa borom sa soxna xajut sa diggante ak waaye yow soxna si sa boroom kër xajut sa diggante ak sa borom waaye yow parent bi sa doom xajut waaye yow mi di doom ci sa papa ak sa yaay xajut sa diggante sa borom kon jëfal li ma la sant te ñii ma la tuddal ku ne nga def war ma sa digganteeg moom ndax man maay fay même àdduna ak ak meññatam ak taar taaram fexeel ba bu mu dox sa digganteeg yàlla ku ne ci nun d'accord wutal àdduna waaye boo ko jàppee def ko waruwaay pour dem ci yàlla li la àdduna jox def ko waay pour dem ci yàlla bu dee alal la bu la ajuma xëcc ci boppam pour nga foye ko waaye su dee da nga am alal xëccal àdduna def ko ci ngir jaamu ko yàlla mu ngi fi ñi nga am alal yu jeex def ko ci ay barab suñu borom dañu fexe ba gàññee seen àdduna am ñu àdduna am ñoo xam buñ ko amee ci ay fowukaay li koy dugal kon mu dox mukk sa diggante sa bopp loolu mooy dim mu tàmbalee wax ji noonu ndax lim lu mën a xew nun yàlla ñoo lay jox wërsëg te am yàlla moo gën am lu nu moom wa risqu rabbika xayrun wa abqa am yàlla ba yëg ni am nga ko mu jox la mooy nga jaamoo ko yàlla te yàlla tax moo gën lu dul loolu loolu ko gën ci yow ay ji nag moo wax doon wax léegi wax mu ahlaka bi salaati bi mu koy wax ci yonent bi la ko wàcc waaye dafa jaarale message bi ci moom rek su ma waxoon imaam mi ne ko na nga wax waa jàkka ci nañ farlu ci jaamu seen borom kon day mel ni dama am sama kàddu jaarale ko ci aw duur jàppal yow yaa wutu yonent bi ci sa yaa wutu yonent bi ci sa kër yow borom kër bi yaa wutu yonent bi ci sa soxna yow soxna si yaa wutu yonent bi ci sa njaboot di ko topp di ko topp ba ci borom dëkk bi ba ci borom réew ku ci nekk ci noonu da nga war a soññ ña nga yiif neen jëm leen ci yàlla seen borom te jaamu waxu waxu ahlaka bi salaati bu bu ñu am benn benn moyen bu ñu la jaay ba tax doo leen teg ci yàlla léegi-léegi dafay nekk alali àdduna fiiru seytaane wala pouvoir pouvoir boo am daraja mën na nekk fiiru seytaane wala ab taar na nekk fiiru seytaane même bu dee doole mën na nekk fiiru seytaane ataa xam-xam la sax nag waaye xam-xam ba mën naa nekk fiiru seytaane bu mu ci mën a doon fexeel ba yii ma wax boo ci xam ni ci nga yilif da koo am bu mu tee nga nga nga soññ ko mu jëm ci yàlla hmm? doom ju bari alal bu mu tee nga xam ni yaay bàyyam teg ko ci yoonu yàlla su bañee moo xam soxna su rafet bu mu tee nga teg ko ci yoonu yàlla parce que yaay kilifa taalibe bu am alal mu tee nga teg ko ci que yaay sëriñam wax mu digalal Anda sa sañ ñu kum mëna doon ci ñi bi salati mu jaamu yàlla borom su jare sax wastabir alayha nga jëflanteeg tek mom nang ko def nang ko def ya xam bu ban la ci su ne bo xamni japp na ni bu la million lu mu def bu dee lu neexul yalla do ci ñime wax borom bi neen boko mané gedd bok alalam sax mo gëll parce que alal ja du doon lu lay yokk ci yàlla posen lay mujj doon ci yow kon bu mu la koromp bu dee ci soxna si taaram wala kàddoom bu mu tee mukk nga digal ko mu jaamu yàlla parce que yooyu yëpp dafay yàqu ëllëg su dee doom ju am doom ba tànk ndomba gi bu mu tee mukk nga xeetal ko ci yàlla borom gis nga barki démb jàng na fi benn aye axatalta nafsan sakiyatan bi xayri tibin nafsi xulaat wali yàlla bu mag boobu ak moosa yonent yàlla bi dañuy traverser di dugg ci dëkk bi romb benn teene fubal xale bu mën a fubal nga ca mu dox ba tolloog moom rek dur ko mu egg tëdd ci suuf mu jekk ni ko yonte mo Musaa dafa wax khodar ni ko def nga musiba ki nga rey ni toñu la ya ko fekk fi muy fubale dur ko mu ta lu tax nga rey nafsan bakken bi nga xamni saketan saké bobu du firi ak sel ak tar la xale bu rafete ni mana a fubale nii nga xey xey sacrifier ko té mëno andi ben lay bi xëy tibinas fan nga ko tek loolu lay bañ mu dal la yow ci sa njabot ci sa talib ci sa soxna ci sa doom ba question bi wacc ci yow su fekke dem nga ba gis ni ki taram bi man nako xagn yalla yàlla alal ji man nako xagn yalla yàlla mu xagn ma man manam gedd ko mook alal ji sax mo gën gedd alal ji ta am ko mom waaye bu ñu eggee ci bu la taalibe joxe alal doo ko waar lu lu mu ne nga rafetalal ko su boobaa musiba day am su nee ban doom ba tànki àdduna yii ki ko am mu nuru buuru àdduna moo xam président la moo xam ministre la moo xam député la ak ku mën a doon ci ñoom su xasee am ndomba tànk googu noonu ñimeetoo ko wax dëgg gedd àll la jar wax ko dëgg moo gën maam mu bañ laa defaral defaral télé bi sa buntu kër da wax ko mu mu mu dimbali jaami yàlla yi te dimbali dëkk moo gën xam nga ñu léegi-léegi ñu am ñun benn erreur bu ñu am kenn ci borom domba tànk seet si la fekk laa ak njaboot ngeen wax ba wax jay jeex ñun leen def leen teetaateet yéen ñaar bu la dee jariñ mi ngi yàq sa àdduna bu la jariñ mi ngi yàq sa àdduna parce que nit ñi ñoo moom seeni xel kenn mën leen tee xalaat te fekk moom système am kese la waaye mu génn ñu ni jox na ko maret pourtant mën naa bañ a am de waaye fa yow egg du man eggu fa su fekkee jox na la ko nag faf ba tax ba doo wax dëgg gi boobu boo gën a garaw ndax ku ku ku ku wax sa suuf xamul lu ko war a waxee wax kay amul sa sutura loolu mooy waaye amul sa kersa yooyu dafay am te ñoom am na ci ñoo xam dañ ko mën te jaruñu ko nag parce que bu jamono jaxasoo ñu ngi soxla kilifa mu intervenir dëgg ba nga xam ni def na ko te boo koo digal ci suuf mu lànk bañ koo def ndegam àdduna lay diglu wax ko ca kaw ba ñëpp xam ne wax nga ko moom moo lànk day tax rek pénc mi yoon wi am règlement parce que su loolu day dem ba benn moment pénc mi li teru ko am ku tooñ dafa benn kilifa dafa daan wax ni masala masalam diine su daanoo ci pénc boroomi xam-xam ci suba ji ñu xëy ba ngoon di lijjanti masala ma te mënta lijjanti ko borom barke ci jóg gi borom barke moo ci jóg borom barke ba mu doole masalam diine tàbbi ci pénc borom bi xam-xam ñu xëy ba ngoon di wëru masala bi te ma su ko lijjanti borom barke ci jóg gi que ku yëkkati tànkam yat mën a dal ci sa kaw moo tax gaa yi ne gisul ko xamul fu mu dal waaye fekk am na ko ko seen loolu mooy kilifa yu mag yi suñ demé bañ nyepu bi ñepp di koye, te mbir mi ta faj wala am ko ko mëna a faj waaye kenn du ko wax moy tax mo tax pinch mi waye ku taat yu melni ni topon ci rasulullah parce que nak momet yonent bi ak li daraja bi ri ri ri lu musa jaaxal gaay ci pinch bi lu sew sew sew dañ ko ko wax dañ ko ko laaj te dawul am rëy tontu ci te du leen mere parce que daa daana wax ni cadeau laa bu leen yàlla jox dañ ko daan laaj ba di ko laaj seen biir te da ciy tontu ko laaj ba di ko laaj booy dugg toilette te da ciy tontu te léegi yooyu am na ci wax ñi ma ko laaj si kilifa te pourtant xam-xam na ne booy dugg ci wanag jiite la sa tànkum dañoor allahumma inni a'uuzu bika minal xubusi wal xabaa'is fekk la nga cay teg te kooku da ko wax ba pare ne ko bu dee yoon nag yow looy wax yow da ko waxal ni yàlla maa ngi muslu ci seytaane ak sobeek lu yàq ne ko boobu di waaye bi ngay wax yow laa a wax maanaam mooy yow boo dugg ak yow te di ki kat day wax waaye rëyit moom mos naa dégg benn bis sëñ si Ahmed Tidiane sal maktoum yalla ko yalla dolli leer ak yermane parce que dafa dafa dafa jamono muy dañu tok bis ci ci jotaay ko tedd ga sahaba yi nu jekk ba yàgg rek nga gis mu ñok kat mom xabar xabar yo fe ñu gis ko muy tour ndox xam nga loolu bu dee ci nun da ngay wax du teggin mais bu dee ci jàngale moom loolu la ci jubloon moom yonent bi pour pour dafa parce que ñoom amuñu woon woon ak yi ñu am amuñu ay salle de amuñu ay sato fañ daan dëkk ay néeg yu ñu defaree woon ay bu téer yi ay ay ay ay ron ay xëddeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ne li dara ci biir yére bu jant bi musaa génn bu tàppee ci kiyam keroog jant bi day wàcc bu sedd bi ñëwee muy bëgg a dee te ku yàlla bind moo la gën waaye li dara jëm di yére yére loolu la tolloo moom sëñ Tuubaa mii borom baraag dañ ko daan wax ay ay néeg yu am vitrine comme yi ñu yi balcon seen jàkka mel melu woon nii booba loolu xewut ni ñu soloo nii moom amul woon yére yu mel noonu seen manto yi seen abbaay yi dégg nga sax ci ci ci ñuy jàngale dëgg dëgg taarix li ñuy wax tubay ñu ne benn la ci amoon mais bu dee yonent yi ko jiitoon amuñu ay tubay xanaa loolu yàlla mooy wane jamono mu jekk baa ngi gis ko mu waaxu ba fële muy tuur ndox ñépp ni pat ba mu ñëw ma xamal dafa am na loo xam ne ci nit moomu ko maanaam nelaw nit moomalu ko boppam xiif nit du ko def boppam safa gaanuwaay nit du ko def boppam moo bëgg a dem toilette ñooyam ay mbir la yoo xam ne yàlla dafa mooñ nit day da jóge fii dem Dakar mu la ci yoon nga defar ba jek dugg sax oto jëm Dakar bëgg tour tuur ndox ci yoon est ce que yaa ko préparé té té ga daf lay gañ mu muy wone ni bu len ci reuy su len tabaté dem ngeen génne ko dañu tok parce que inama ana basaru mislukum man nit la ko yéen su dee ko melni man da ngay reuy té ko mom gañ la soy fatali ko amona ben kilifa bu joge dekk sangam di ma seet ñu ne ba génn teewoon bëgg tour ndox takk te amon na juróom-ñett fukk jëm kaw mu essayé na ko téye bi bi mu paasee teewoon jëm si jaxate am benn sob am ci yoon wi oto yi taxaw mu ne na ko téye foofu la mujj crise wañu ko dellu ca feer boobu sax ci la génne àdduna waaw amoon na yàlla ko yàlla yërëm ñu dëkk suñu dëkk yi ñuy defaree suñu teetu xadar bi maa day dina joxe prostate da koy joxe bëgg a tuur ndox téye ko léegi nag sëñ Saliou daana wax ni nooy xamee war nga koo def moom danaa jàngale mu ne saa yoo ko yëgee ci sa bopp rek saa yoo ko sa bopp mu jot na bu dee man atelier téye téyeer laa yor dama naa naa eggale tissu bi ndeke dafa mu nekk mu ngi koy lakk lu gudd gudd gudd la dama cee dugg waaye tax moo la jóg yonte bi di jàngale loolu ndax ndax modeste waaye terewul bu dee ba jamono egsi foo xam am nga ay wanag yu làqu am ay salle de bien demal def ko moom booba jamono loolu xewut boo tax yooyu yëpp di ci moom waaye fi ma doon wax rek mooy digal sa njaboot lu jaamu sa borom bu la bu la bu la bu ja tax sa doom nitu nguur ku mën a doon soo waree waxtaan ak moom doo war a xam moom li war a wax ndax ku ne am na koo tollool fii ne man man na maa wax ak maire bi waaye am na koo xam ne moom ëpp daraja mën naa wax ak ministre bi waaye am na koo xam ne moom moom daraja mën naa wax ak président parce que am na koo xam ne ay yoo xam ci président mënul ci président dara ndax du la du la dégg parce que kenn du ko ni imaam ba muy xutba ca jumaa ji lii la la wax yow ñeneen dégg jotiwul fa te moom jot siwu la waye am na kan man na ko telephone bi ni président mu ne amul ko fi ka son nañu kan def fi nangam ba bàyyi fi nangam kooku dañu soxla bu wax jotee mu wax su awut ci dox sa ak mom muy ndonga bi nat bu ko dal yow ci nga bok mom ci la bok su la baye nak sawar su baye ngi rew sawar parce que fam ko noonu la mel xeetu jaamukaayu yàlla yi buñ ci waree waxtaan ak ak jaamu yàlla yi dañ ko war a wax waaye noonu la mel nag sa doom sa soxna sa lépp kenn koo war koo war a jaamu ci yàlla rek sonn ci yàlla rek soññ ci jaamu sa borom nga soññ ko ci day tax rek jaamu am te gis nga képp koo jaamuloo boromam dimbali nga ko àdduna dimbali nga ko alaax waaye koo dox dox si lu dox si diggante ba defoo ko lor nga ko adduna lor nga ko alaxira ndax yàlla nee na rasulullahi wansir hashiratika al aqrabin yonent bi day daan toog mbooloo wër ko muy wax abubakar di daanu muy wax omar di daanu muy wax osman di daanu muy wax seen ali di daanu saxaaba yépp di xëm ngir fees ak leer te bu ñëwee këram kër ga ni nee na tañax dara amu fa borom bi ni ko li ngay bay ci biti tambule ko ci bir kër yaral sa njabot ban yor nga jangal len diin wax ni ko sëñ tuba hmm? yar tarbiyal sa talibi yi ci himma wala ko bi yaral tuba mi ashabaka bil himma waye wala turabbihim fi darsi faqat bu len jàngal ba seen mimaara ñu mokal ko rek dem seen yoon te xamuñu ni bu ñuy jang ba seen mimaara dañoo war a sukk yaru bu ñuy lek dañu wara sukk yaru bu ñu rombe nit dañ ko nuyu nuyu bu yiw bu ñu wax nit dañ wax ak nit wax ju yu da nga leen di yar ci himma ba noppi ban xam seen diggante seen borom xam seen diggante seen morom nga doog leen a jàngal parce que ko jangal te yaroo ko lu mu yàq ya ko def loolu mooy li fi nekk rabbi asxaabaka bil himma sëñ Tuubaa jël méthode bi defar ci maam Cerno Birahim xool ni mu jël méthode bi def ci maam Seex Anta xoolal ni bi yar ci maam Seex Arafaat xoolal ni mu toll moom la ñu def ci sëñ Masamba ak sëñ Maag sëñ ba sëñ ba sëñ ba ba jëpp mel niñ mel su yemoon ak moom ci baasin mi war a jeex ku ne buñ mel niñ mel manam jang alcorane do man ko jang xam-xam bonop bonop bonop nek gor yalla gor yalla moy man da nga yar nit yalla ci worma ak yaru lañ koy amé waye du ci bari ay riwaay borom keur bu nek ci non defat sa njabot mom la wolof di wax éducation de base daf ñoo war hmm? waaye laa na xale kari xal bu doono sim go wërsëg ba tax do le ñaar parce que nahnu nu ñun yalla sa wërsëg ñoko yor yow kon bu la ko xañee mën naa la ko jox bu la buur xañee yàlla mën na laa jox bu la doom xañee yàlla mën na laa jox su la jëkkër xañee yàlla mën na laa jox la bàyyi xañee yàlla mën na laa jox yow li nga ko war a diggal digal ko ko rek bu nangoon na jëf bu nangul moog yàlla waaye waaye bu alalam mag taaram ak dooleem dara tax boo ko bëggee teg ci yoonu dëgg doo ko ci teg luy loolu lu mujj fenn kon wal xaaxibatu mujj gu rafet gu am jam gu am àjjana am teranga li li li taqwa ñi ragal yalla rek ñokoy am bu ëllëgee kon loolu rek lay jël muy ben ay boobu ñepp ñu ko jël tarbiye sun jabot soxna yi nañ leen di yé bu waré jamm seen borom doomi nañ leen yé bu waré jamm seen borom borom kër yi bu dee dañoo na leen soxna yi yee eh. bu la nee duma sa morom rek da ngaa seytaane yow nee ko sëñ bi waxtu wee jot rek yàlla dala ciy fay waxtu woo yiw yiw yow soxna si yiw ci colin ci doxin ci waxin sa kër bëgg laa soppi ab nasaraan bëgg laa bonloo lànkal parce que yàlla moo la ne la yow yaa di sa annabi lastu laka ahadun mina nisa nunoo woog yeneen jigéen ñi yow yow yow yow yow yow jigéenu yonent bi da ko ne xulli aswaajika sax la ko fa la aay ba tàmbalee waxal sa soxna yi wa banatika te wax sa doom yi wala saa moomin ak soxna yi ñoom ñépp nee leen nii na alayhinna min jalaabibihinna nañuy sol sol gu yiw aaya alxuraan la de yàllaa ko wax de te yonent bi la ko wax de ne ko wax ko góori jullit yi nañ wax ak seen soxna seen doom ak soxna yi taalib yi waye léegi jigen no solo baxna te sa kilifa du ci wax fu la neex dem sa kilifa du ci wax lu la neex def sa kilifa du ci wax parce que ñaar tara tax wala lambi wu xor wala alal bo legi yalla bo leen ñep lak kon ñi ñëpp na farlu ci ki nga yor ak ñi nga yor te xamni ni bi neena bop bu nara yelu barke ëllëg lob buy deg ndigal a sax bop bu nar a yoru barke ëllëg nopp buy deg ndigal mo cay sax waaye nopp bu déggul ndigal ngam bu mu tafu bop ba ci gatch lay muccu ma bop ba ci gatch lay muccu diw lu ko li mën dalé dale rek ak mujj gu ñaaw xam nga mujj da wara a rafet dem dafa am yeneen boy fatlu bam ba ñaar fi jëm juróom ñet suñ borom dalay yoral sag mag maanaam am na am na xam na xeeti dee yi yoo xam doo ko dee mukk aw nijaay ju leen foo jëm dañ lay jéppi da ci xam la lay jëkk loo wax ñu ne paa bi waxul dëgg ku la ko teg ku lebal yàlla sag ndaw mu téele sag mag moo tax yéen yéen ndaw ñi jox leen yàlla seen bopp seen ndaw ñi nga màggee mu ko ne leen yàlla defal tawféex te defal lu sutura te defal nu ndimbal te may nu jàmm ci réew mi biig lañ ko doon ñaan fii mel na ya ya ni yëf yaa ngi dox yàlla rek moo mën a fal mu ngi yaakaar ni aaya bii xuli allahuma malikal mulk yàgg nañ ko dégg waaye tuuti mulka man ta moom day mel ni bind bu bees ak yi ñi japp ni ñoo dem président wu réew mi fii ne ki ko ci gëna jige boole wuñ ko ci woon yàlla nax ñu yoroon réew mi nax borom candidat yi jël benn waaye bu nekk ca ginnaaw làng ni ko ñii neexuñu ma yow mële xam nga dañuy xëccoo kaay yow bi nga xamante ni wóor na ni bu doon yaa sëppal sa bopp doo am xam nga ñi ko représenté ban xam leen yàlla bàyyi fi ponkal yi ñu xam ni ñii war nañ ko mën a yor mu dem koo xam ni bu fekkoon daa bokk ci laaj bi du am suñ borom ni xaaral ma wone sama doole ci moom jëli kenn ca ginnaaw njag ba waaw kay foogu ñu la woon ndax yeneen gaa yi fi nekkoon lëmbi pénc mi ñooñu yàlla tànn ci mbir yomb na parce que li fi xew lépp loolu la doon def opposant bu am ñaar fukk ak juro wala fanwer ci ci ci opposant ba nga bañ xam ko ci ak buur bu dirise nguur fanwerat ñoo ñu min nañ leen dañ ko té li walé wul ko mo doon am al toppe mu jukki ko diko kay kaay doon am al jitu tuuti mul ko man tassal lol moy lol moy ma tay luma neex lay def fi lañ man fi lay wara gëna yalla ñun bu sonko jëloon réew bi duñ jaaxal ndax ñëpp moom lañ ko yéene te man na ko kii fi jógee su ma fi dajatoon duñ jaaxal suñ borom ni pour mu wàll ni man na ñi ngeen yaakaar naa éliminer jël kenn foku koko yalla borom bi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh نصر من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برم نصر الله دين جاء